برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نوينا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا yàlla bi mu sakkee àddina ba fi léegi. yàlla bi mu sakkee àddina ba léegi. moom moo warlu. moom moo warlu. tarbiye jaamam yi. di tarbiye jaamam yi. di leen jubal ñu dellu ci moom. di leen jubal ñu dellu ci moom. moo tax mu yónni yonent yi mu yónni yëpp. moo tax mu yónni mboolem yonent yi mu yónni. dale ci Adama ba ci. dale ci Adama ba ci yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam. ak nu bootu jeex. bootu jeex. ak nu bootu dal di jeex. mu des nag. mu des nag. ñi doon yonent yi. ñi doon yonent yi. yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam. wax na ne sallallahu alayhi wa sallam. malamaa yi doon yonent yi. borom xam-xam yi doon yonent yi. du ci askan du ci deret. doowul ci askan nag. mbanoo du deret. du ci juddu du ci dara. doowul ci juddu doowul ci dara. pàgguteef a koy maye. pàgguteef rek moo koy maye. juddu du ko maye. juddu lislaam pàggoo koy maye. maqaama lislaam. soppoo koy maye. juddu ko maye. juddu du ko maye. su fekkoon juddu rek la. su fekkoon ni juddu rek la. ba léegi mbit maa ngi ci loxol sërif yi ca xarama yi sërif. léegi kon mbit maa nga ca loxol sërif nekk ca xaram. wala sax nekk fii. waaye ci faggu la. waaye yëf yi nag ci faggu la nag. dafa wax ne. yonent dafa wax ne. ñun mboolem ñu doon. ñun mboolem ñu doon. nga ne dàq na ban dono ci juddu. nga xam ne kon. wala fi yonent bi woote sallallahu alayhi wa sallam. mu ne ko wax nga dëgg. mu ne ko wax nga dëgg. maa ngi fàttaliku am na ku ko fekkee ci jotaay bi. mu ne mi ngi fàttaliku am na ku ko fekkee woon ci jotaay bi. bañ demee Kaahira. bañ demee Kaahira. yàlla xiir ma ci juma ma julli ji ci jaami wala sar rek. yàlla xiir baay mii ci juma mu dem jaami wala sar julli ji jë. maa ngi si toog rek. bi mbaay ak rek dal di toog. ilimaan ñëw ne ma yaay jiite kat. ilimaan ji dal di ñëw rek. jox baay dokk bi ne ko yaay jiite. ma ne teg. mbaay dal na teg. soo parewut pour xutba gi. mu ne baay su fekkee da ngaa parewut pour xutba gi. ma bàyyi la ba beneen àjjuma. ma jéggal la bon ba beneen àjjuma. ma ne ko baax na kon nag léegi. mbaay nag ne ko baax na ma yëg léegi. xanaa xutba leen jiite leen. mbaay dal leen di xutba ci xaayiraam. moo salmalee mu jóg di faral xutba gi ma xutba bi baay salmalee ilimaan ci jóg na xutba gi baay xutba woon mu di ko sara di ko feccil nit ñi nett na ca li ma wax léegi nett na ca kat lii leen baay wax léegi boobu buuru julit bi laaj boobu buuru julit bi laaj réew mu nekk fay njiit ci lislaam réew mu nekk fay njiit ci lislaam ñu ne ko nit ku ñuul la ñu ne ko nit ku ñuul la mu ne lislaam mu ne diine lislaam njiit gi ci xam-xam ak jub rek la aju njiit gi mi ngi aju ci njub ak xam-xam bu doy sëkk ku gën a xam rek ko kay si sang ku a xam mooy sang bi rek mais mu ngi fi ñëw mel ni gan nag mu dal la waa misra kii ñu jiite tey mi ngi fi ñëw mel nga gan ci ñun waaye ndokk bi nga xam ne ñun ñu ngi bi nga xamee moo ñu sut amuñ ca benn kayaan ñu nangu koo jiital. la Fodé Dia waxoon Isaam ibnu Abdul Malik. la Fodé Dia ibnu Abdul Malik. mu ne waaye lu mu gàtt gàtt fàttali nañu lu nekk. mu ne waaye nag lu mu gàtt gàtt fàttali nañu lu nekk. mais fàttali nañu ni ñuy jàng alxuraan. fàttali nañu ni ñuy jàng alxuraan. fàttali nañu fasaa ci wax yaaram. fàttali nañu fasaa ci wax yaaram. ak yeneen jikko. ak yeneen jikko nag. ba jaamu doom bu dëkk Misra jàng ci jaami wala fa rek mu fi jiite. doom bu dëkk Misra jàng ci jaami wala fa moo fi jiite. lu mooy nag bés bi fi bàyyi di jiite. loolu ma leen di wax ne. loolu leen bàyyi di wax ne. Eh, lislaam. lislaam. dono ci. dono ci. ajuwut ci juddu mi nga aju. ajuwut ci juddu mi nga aju ci xam-xam rek.